wàcce ci yëngu leen ma suñu mbokk yi Ndar yépp lay nuyu di leen ziar di ko teg ci loxo imam Cheikh Tidiane Diallo di fàttaliku sama xarit Golbert Diagne tey nag fii la bëgg a waxee lu bëgg a wax ci biir mool yi ñii suñ leen bàyyee danañu jël mool yi fii ci Guet Ndar yóbbu leen fële ci Louga wala Kébémer parce que géej bi dañ ko bëgg def ay géej de plaisance 3 avril 2024 bi suñu falee président de la République du Sénégal pêche artisanale bi dañ koy yëkkati ci kaw bateau yu nekk fii ci Sénégal ay chinois ay coréens di yàq géej bi dañ koy arrêter immédiatement di leen yëgal né on a un très grand projet pour la navigation du fleuve Sénégal projet bi ak OMVS la mais ñun gëm nañ ko ci andi financement ak xam pour ñu la navigation sur le fleuve Sénégal mo xamal len pour di ci yok gaz bi ak pétrole bi xam nañ effectivement ko am nag bërëb Nous duñ fa mëna dem ñoo suñ ko exploiter eh bien ñom dañu à part. Nous ren suñu ambition moy ñu gagner Richard Toll. Sénégal suñu souveraineté alimentaire. Nous bëgg filé ak Sénégal diko ko diko transformer ci ay usine xalé ji ci liggéey ñu diko jëriño Sénégal té suñ ko mëna exporter ñu docteur koom-koom moo mën a faj koom mais ko xamné depuis boo nekkee directeur des impôts et des domaines suuf ngay lijjanti dajale say kër wuté ascenseur diko ci def xam ngeen ne koku xamul dara ci koom au Sénégal Amadou bala bëgg wax damay jaar ci digg lama bëgg wax fi la ko mëna waxé fi ci Podor dama bëgg waxtaan ak étudiant yi fii laa koy waxé L'université cher Ante Diop généré mais mënu ñu ko bay 100 000 200 000 étudiants Ce n'est pas possible université normalement tu dépenses 25 000 étudiants nous di ko bay muy 100 000 légui 200 000 Nous ñoo jël ye bay ko qui dafa wara am ay pôle pôle université dafa tamit industrialisation noonu nañu war a tabaxee Sénégal ci loolu laa leen di woo Amadou Ba signé na nee na Sénégal day jël huileries yi fu ñuy defaree diwlin yi usines yi def diwlin yi da leen di tëj tegu ko fenn ñun au contraire nee nañu usines yooyu mën nañ leen dekkil développé leen